Astou Fall moo faat Adama Diop may gune juróomi at ga ñu fekkoon mu ñàkk bakkanam ci benn tabax bu pareegul foofu ci diwaanu Sébikotane xamle na nag yeneen i xibaar ci ñaawteef ga mu def gannaaw ba mu dee tànt ci xale bi Astou wax na l'enquêteur yi ne rek dafa taxawoon temm ne dana faat Adama Diop ndax bu weesoo la mu bëggoon naqaral yaay ji xale bi itam da daan am dëgg saay su ci kaw doomam bi ñëpp doon ko faral mu di lu ko metti woon loolu rek paaka waañ la faatee xale bi te lu mu waaj la ndax bésu le 13 juin googu la fopp doomam ne aadama Diop na ànd ak moom ay boori 18h la woon xale ba daal koy topp ba mu xam ne ni rek kenn gisu ko ci la dugg ak moom ci bâtiment gi teg doomam ci suuf fëtëral Adama daal koy rendi nee na nag ba mu tegee paak gi ci putu xale bi moom a aadama da doon fipp waaye daal ci la ñàkkee contrôle am daal koy def ñaawteef ga